soxna si bul def nii soxna si yow boo jooyee danga may jooyloo de muñal muñal loolu dal yow metti la metti na torop metti na maa ngi lay masaw bu baax a baax a baax mais muñal rek soo Ya, ya, ma yow yaa ko wara jappale bo defé ni day gëna jaax da ngay muñ rek sama yaakaar la dal nii man xam ni na na sama yaakaar de muñal rek muñal ma benn bii rek laa yoroon def ci sama yaakaar wa muñal rek góorgóorlu jàpp waay waay Moussa Ndiaye muñal rek Moussa Ndiaye yàlla ma ñaan bilaay li ma def ba ko jéggal bukk metti na mais muñal rek dañu muñ rek góor góor góorlu muñal baa ëmbul ah ma ni baa ëmbul doom déedéet ëmb amu ci xool naa ko bu baax ëmbul benn feebar dalu ko amul benn jafe-jafe ci yaramam waaye ndaw gi dem na waaw moom moom affaire yooyu moo waxatuñ ko moom moo waxatuñ ko moom mais ëmb dara jotu ko moom dëgg fa yàlla tas sama yaakaar. muñal rek jàppale ko muñal la bindal ordonnance mu jël ko ordonnance yi nga xamante ni day tax ba du xalaat am ay benn jafe-jafe léegi dinaa la bindal kayitu ordonnance. waa lan moo xew mooy. dangaa nekk ci problème àdduna bi yëpp ŋànk la ma jaaxle torop aw ma benn recours lu dul ma dem ci alxuraan jii nga xam ne moo fi ne ma dem sukk fa ñaanlu loo xam ne dina dalal sa xel dalal sa xel sama xel mi. alxuraan jooju weesul ngay julli di ma ñaanal. maa ngi koy def. mais loolu doy na ma sëkk doy na ma sëkk mais yow combien d'années de mariage ñaata problème lañu am même bu fekkee ne bii moo gën a garaaw. yaa a ñëw même bu fekkee ni bii moom gën a kañ doon yaakaar démb moom la ñuy yaakaar tey mu yàlla suñu borom.